Hello guys, hello guys, ici Edou alias Bouba, hein, le PDG des Mbeut en action mais les affaire Mbeut lay jël teg ko parce que la première dame elle est là la dernière dame elle est là So <laughs> gars wax ji ben la Wave mo ñëwaat encore une fois jàkkaarloo ak ay clients am bëgg leen bëggel waaw xam ngeen dil bi lan la spécial promo taxi waaw mhm. promo taxi bu ngeen bëggee xam lan la déglu leen madame

beneen bi nga def ci carburant feesal oto bi wala nga takk ci dem ba Ila Touba waaw. alors loolu mooy nouvelle campagne bi promo taxi la taximaan yi dañuy sargal ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy dugg ci biir taxi yi. Mm-hmm. mu ngi noonu ñu daal di dikkaat ci yeneen baax baax ak Wave. campagne baa ngi fi du 2 au 13 yéen a ko teree neex. bu baax bi la xanaa Wave moo fi nekk.